mbokk yi asalaamullahi aleykum wa rahmatullahi wa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm yaa mi bëgg a seet say mbir ba xam nu mu tëddee nga xam ni xaw ngaa jaxle sa bopp nga bëgg a xam lu waral gàllankoor yi adduna yi ak jafe-jafe yu bari yi wala yow mi nga xamante ni bi yaa am aajo te bëgg xam saraxo aajo bi li mu doon ngir boo saraxee suñu borom fajal la ko a yow mi nga xam ne yaa bëgg bayre njaay bayre si sa jëmm bayre jigéen bayre pour mbooloo ak képp koo xam ne da bëgg mbooloo mi wut si la incha allahu rabbi bëgg nit ñi di la dikkal saa su nekk waaye mi nga xam ne yaa bëgg kaaraange moo xam da ngaa yàqule moo xam da ngay le te bëggoo yàqule moo xam ki cat topp ba tënk ay mbiram moo xam ki rab sonal incha allahu rabbi waaye képp ku bëgg ak jokkoo ci sa jafe-jafe àdduna moo xam ku tëju la moo xam kuy wut place la moo xam kuy bëggante la moo xam ku bëgg jël soxna la moo xam koo xamante ni bii daa bëgg ñu tëjul ko. yow mi nga xam nii am ngay jafe-jafe bëgg a xollu bëgg a istixaarlu yow mi nga xam ni da ngay taxawal entreprise wala société nga yaakaar ni dana dem wala du dem yow mi nga xam ni feebar dal na la feebar boobee nga jàpp ni da ci jóg wala doo ci jóg. waaye yow mi nga xam ni bëgg nga ku la dëggal xalwa seeti ko gaaw daj nag ba dëjatoo daj bay dajale ñàkk loo ko dojeel ku ko ñam ah da nga xam ni ñam nga ko xam ni dootu ko bàyyi ba abada